أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن TV ñu leen di siyaare bu baax eh, li ngeen doon laaj nga xam ne dafa jeexoon fan yi yëpp indi laaj nañ leen ko muy mille force bi nga xam ne ne kàttanu sëy dong moom moo ko tax a jóg sëb sëy dana yàgg lool te neex lool waaw nga xam ne ne biñ ko defaree ba léegi eh, commande bi dafa jeexoon waaye nag bi leen waxaat amaan na fii si Kun Fayakoun fii di wax toujours rek soxla ñi ngi jaxaay de Kër Massar ak Fass Fass Colobane bii nga xam ne ne jël gi dafa yomb lool te danga koy booleeg meew di ko naan guddi lu mu dee dee dee quinze minutes danga ko am jëm kaw muy kàttanu sëy goo xam ne dafa gaaw lool te bii nii dafa ànd ak benn pommade boo xam ne ne bu fekkee sa awra day faral di dellu wala du dëgër wala day gaaw a daanu awra eh, pommade boobu ngay diw sa awra fii yaa ngi koy diw sa awra rek macha allah moo tax kon moom leen indi doon tey pour ñëpp man see am balaa commande bi jeexaat muy mille force nga xam ne ne eh, bi mu ñëwee ba léegi ku ne ngi laaj kon nag ngeen wuti ko bu baax di leen wax ngeen abonné si chaîne bi Kun Fayakoun TV nga xam ne ne njariñ ak xam-xam dong moo fiy jàll tous les jours